président ginnaaw bi ñu la nuyoo. bëggoon nañ xam lan moo waraloon woote bi ak lan ngeen jot a tënk ci biir. waa ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen sant di nuyu internet yëpp di di rafet lu ñëw bi ngeen fi ñëw te di leen xamal ne waxtaan nañ waxtaan bu yaatu ci mbirum làmb ñu mbirum ouverture saison bi man samedi demoon ci réunion bi wala au ministère mais def nañ résumé liñ fa wax yëpp. Euh, ci loolu lañ doon discuter parce que ministre bi dafa proposer pour ñu ubbi làmb ji mais en huis clos huis clos mooy du am public kenn du seetaan ñoom état ñu jàppale promoteurs yi ci mbir moomu waxaguñ nag naka lañ ñuy jàppale waxaguñu naka la mais daal d'accord nañ ci commencer à huis clos yow pare nga pour yóbbu làmb ci huis dóor mu dal buñ dema dimanche ma dóor 5 millions léegi huis clos fi lutte simple condition yi ñoom ñoo koy déterminer rek nee nañ dinañ ñu jàppale l'état dafuñu xam nañu voilà y a pas de public te man xam nga man lutte simple public laay doxee buñ ne kenn du dugg ah nañ xool liñ may jox rek man ma dóor li ci des bu ci bu ci pay per view xajee ñu daaj ko ci rek c'est tout. ok état bi bu ci xaw ma ci fan lay domaine du ma dugg ci mbirum état nee na daal ñu jàppale. am ngeen foi en l'état. moo wax ministre Matar Ba moo wax jox délégation de pouvoir CNG CNG waxtaan ak ñun ne mën nañ commencer à huis parce que mbas bi dafa doy waar fi mu toll. mais en tant que tamit promoteur tey. waaw ku ne xam na ne tey lamb ça avec le public. waaw parce que tey nga nga nekkul bitim tey maanaam am loo xam ci wàllu sport ñu a waxee tey ay politiciens man de wóolu naa ñi ma dig. Mm-hmm. ndax mënu ma sama réew ne wóolu ma ki ma jiite ak ñi ma jiite wóolu naa leen je suis prêt à me ku ci nekk nag sa bopp nga mën a engagé wax fa dëgg yàlla bu doon ëllëg ëllëg daal man dóor naa. non joxe guñu dara dañu def rapport gars yi def seen rapport bind li ñuy wax yóbbu ko jébal ko bi mu étudier jox présidence et puis après ñu commencé. mais je pense qu'on commencera avant fin janvier incha allah. réunion parce que réunion yi ay promoteur rek la ñu woowoon dafa am ñu fi ñëw te bokkuñ ci duñu promoteur. voilà ñu génn leen salle bi c'est le c'est le du promoteur parce qu'il n'a pas de carte cette année il faut nga promoteur mooy jël naa carte ren su ma ko ren du ma promoteur ren jag si ñëpp nañ ko mais bu saison bi ba jëlul carte il n'est plus promoteur la vérité est là elle est très simple je vous remercie